jigéen gu jàng ba yor ay diplôme ñu ne du sëykat du respecté jëkkëram yéen a ko wax dëgg la waaye dinaa leen xamal leen de li ci ëpp ci jigéen ñoon ay sëykat lañ ku leen jël ba teg leen seen kër nga gis ku mën a muñ ma ne yéen góor ñi bàyyi leen di daw jigéen ju am liggéey bàyyi leen di daw jigéen gu yor ay diplôme ndax kat jigéen gu yor diplôme ak ku yoru diplôme ñoo bokk yàpp waaw dañoo war a sëy ñoom ñaan ñëpp te it gis nga jigéen bu dee dafa am niveau ci jàng kawe loolu te yow mi jëkkëram àggoo foofu ku jigéen kooku ci la lay gën a nawloo ci la lay gën a fonk ci la lay gën a respecté mbëggeelam ci lay gën a dëggu te it projet boo teg ci kaw rek la jëm ah li ci gën a neex nag mooy njaboot gi waaw boo yoree ay doom ñu war a dem école sa jabar taxaw leen ci éducation bi ci njàng mi bu ñu ñëwee ñu ubbi kaye yi ubbi saagi vérifier lépp te xoolal ñu ci xale yi ci biti amuñu benn éducation taxawaalu la ñuy def mais lan moo ko waral parce que seen yaay yi jànguñu mënuñu leen a éduquer kon yéen góor ñi bàyyi leen di daw jigéen ñi nga xam ne dañoo yor ay diplôme